sakitu anil xaqi cheytaanu axras ñun ñëpp ñu toog di waxtaan delloo si siwaat sunuy mbir tegaat mbir mi ci yoon rek ba a wax ni kii la bala kii la ñun ñëpp nañ teg yàlla rek ci sunu kanam àndandoo nag jaar ci tànk yi nga xam ne ci la rasulillah xuriñ ko ni ko yàlla waxee rek duñu ko toppee rek sunu lépp baax mbokk yi waaye coow li bari na léegi coow li bari na lool bari na moo tax yàlla ñu yàlla boole jaa jàppale يالا دول سورك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله كون يونت بي ليرال ولا لا نمال ليپ لير داف سي جيتو جيفيكو ولا داف كو تك تيري باي داف كو جيتو داف جيف سكلو ولا يوي ييب ني باي سي خيل بو باخا باخ داجي يي نك ني فارال ديكو ديف دي فارال ديكو ديف كور غي ني ген ني ورا خام لوتاخ ني وور gamu ñu wara xam lu tax سيدنا محمد وما المحبة قولا قد تزخرفه بل المحبة قلب قد وهبنا وخون نانكو كون يورنتي بوكو سوبي جيلل سا ليپ رك جوخ موم ليپم داف كو جوخ يالا دسيول دارا سي بوبا كون ني نيب نك سونو جاتا يي ماك ني ديم نانيو واو تا فكي ماتي تا فكي موتشول بايل نيايان بي بايل تيبي ولا بايل يابوي ديدت waxuñu njóobeen bi bàyyil gerte ji waaye na <laughs> nañ ànd ñun ñëpp rek waat bu baax taxaw nekk benn waa di waa ji nga xam naa boo ma xàbbatu comme ni nga ko waxee sànq qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah waaw ku ko ko wax la yàlla bu ngeen ma toppee rek yàlla bëgg leen kon nañ topp rasulillahi sallallahu alayhi wa وما المحبة نك قولا قد تزخرفه بل المحبة قلب قد وهبناه يوي ني باي سي خيل بو باخ رك دي لين سانت نا ني نيب نون داني ورا داجي يانو كاتو خدين داني ييغو واو بشيرو غي في نيب غي في ليغ لي رك ني داجي توك وقتان سيت ليغا خامني موم لا ليس فكي غو نورو ووتي مصيبه لا مصيبه لا كون مبوك يالا ني يالا بولا ديفال توفيق واخو ني نك بور باتو كليفه ديدت ني نيب كو بوك lu ngeen dégg mu génne ci suñu gémmiñ te teguwul si yoon jubbanti leen ko bu leen ñu ci rus moo gën ba ëllëg ngeen ngeen seen ñu di ñu yóbbu feneen ngeen naan bu ma xamoon war ko bu ma xamoon musiba la ñun ñëpp benn la ñu nañ àndandoo jàppandoo yëkkateendoo lislaam bi bu ñu dimbale yàlla rek yàlla qul in kuntum tuhibbuna allah fa ñu koy yonente bi waxe wax nañ ko ñu ngi koy répété bu ngeen bëggee yàlla rek bëgg leen ma yàlla bëgg leen te bu ngeen ma toppee seen moo tax wax ju rëy ah buñ ko jéemee rek mu yomb wallahi buñ koy jéem yàlla jàpp ci buñ koy jéem yàlla jàpp ci ndax euh, buñ ko toppee daal duñ fi jóg yàlla nañ yàlla boole jàppale seex euh, maza tazid wallahi laa <laughs> wax nga lépp fa tabarakallah ñu ngi lay sant bu baax si يالنا يالا سامل نيو لا ياك سونو كليفا يو تيد يي واخنا جامانو بو نيك گيندي غا نيو جامانو بو نيك ويتلي غا نيو جامانو بو نيك فتبارك الله يالا بو يالا داي ندي لا ويتلي سي وال ييب تي ميغي كوي ديف يالنا يوك سي يالا سامل يير لا ار لا لي غورغي ام يينا اك جامو يالا يو اك سوبي بروم سبحانه وتعالى ان لوكو اب يالنا لوكو يالا ديفال suñu jarbaat bi tamit waxtaanam neex na lool fa tabaarakallahu mooy li nga wax léegi rek qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bañ na ko ba ne wa man yuti'i rasula faqad ataa allaha wa man tawalla fama arsalnaka alayhim xafida in alayka illa al balaag waaw bëgg yonent bi rek moo am solo ndax yonent bi léppam yiw la fa tabaarakallah comme ni nga koy waxe jamono bu nekk kaana xuluquhu alquran kaana yem si quran yem si moo tax ma naan suñu kilifa ku tedd gi bi ñu laajee sittuna Aïcha lan moo doon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jikkoom mooy alquran dafa ne nekkoon na alquran buy dox ci kaw suuf waaye man ci sama xel mu gàtt ak sama taalibeeg jofeel ci suñu kilifa ku tedd gi nga xam ne mooy suñu lépp fa tabaarakallah damay wax ne سن ملاجي تيكوم دمنا كان سنة تمشي على الأرض نح محبة يبتي ينتم لكو فيزي مو ينتم دي القرآن بو يدوخ مون كوسوف والله العظيم لي دوني جوك تي مون موتاخ والله على ما نقول شهيد يلنا يلا فيليو فوتول يانغ ني نامبتال تي بك يونتي تلو ريك مو ام سولو سي نغن بال ما سي كادو غي واروما تي تك دارا ني بايل dali xamna xam naa amu fi ndax góor gi dan na wax ne ah dom nu fi noflaay amé ndax ndox noflaay du fi am ndax pëkk pëkk ci wa pëkk pëkk ci bari na way lépp yu dafa fa tabaarakallah yàlla fi yag bi haqqi wa ma yanfau an-nas fa yanqusu fi ard yak sa mbokk yu bax yëpp sa mag yëpp ak njaboot gi su ma nee njaboot gi nag ñun ñëpp rek mag sëñ Ousmane ak ñi fi teew ak ñi fi teewul yéenay suñu kilifa dale ko ci dale ko ci aljiha samiya mu di sëy alxalifa abubakar jaar ci cheikh sidil xaaj malik rakkam soppeem taalibeem jawriñam léppam fa tabaarakallah di adul ay manam ak yow fa tabaarakallah adur nga nekkal leen fi nag ci maxdar bi ak ci xadara bi ñaar yooyu nga boole te suñ ne maxdar cheikh sidil xaaj malik ne xadara cheikh sidil xaaj malik bi nga xam ne imtidaad la ci xadaru mawlana abil abbas ahmed muhammad asalimi tijaani yàllay kese la leeri kese la barke kese la ka fa yàlla teg nag muy saytu mbir mi ku yàlla baaxal la fa tabaarakallah te mu di yow yal nañ la sàmmal ku cher ci ñun nga yàlla xam na ko sëriñ bi ku cher ci ñun nga wallahu ala ma naqulu xam naa ne daal mënu maa yokk wallahu ala ma aqulu aw naqulu nahnu jamian shahidun fi qul ma fi qulubina min mahabatin saafiyatin zakiyatin tahiratin boo xam ne kenn mënu koo qiyaas borom bi moo xam umq bi سنو المو... سنو مودة أك سنو عطف بن أمتيو احترام أك توقير بن أمتيو فتبارك الله تستأهلون أكثر من ذلك وتستحقون أكثر وأعلى من ذلك من احترام وتقدير وعرفان وشكر وحمد وثناء فالله يتولى جزاءكم سيدي جزاء غير منصرم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والختم سيكون لكم سيدي بشير أنت المو جهل نيان نيان نيان ñaan نيان نيان bokk نيان نيان ak نيان نيان fatiha إياك نعبد آمين يا رب العالمين صراط الذين آمين أهلا آمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ختم السماء آمين والقبول والرضا والتيسير آمين وتغلق بها أنا باب الشر والشقاوة والضلالة والطغيان والكفر والفقر والمعصية وتكون لنا بها وليا ونصيرا في ديننا ودنيانا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير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 جرايرنا تمحى بجاي محمد إذا مبي الماما بجاي ذا المبارك جرايرنا تمحى